ku tub la ba dal na Pape Gueye seen càmmoñ Boucher seen ndeyjoor ñoom ñaar ñi nga le waatoo ko am ngay damantey baram ah Pape jël na ko songo nañu ñoo gënoon a la mi ci signature contrat ba Pape Gueye egg na ko Boucher bañ na Boucher rasu na ak ñoo mën wax mën a ndekkee seku Pape Gueye Boucher Pape Gueye da koy añ Boucher bañ na matal matu ko safrla ma ne jàpp rek taxaw ma ngi koy rëpp loo bañ na ma koy weele caxam ma mbat ma laay laay la laa laay laay la laa añ na ko laay laay la laa Boucher daan na Pape Gueye Boucher daan na Pape Gueye ana guy gi ana guy guy gi ñëpp pare nañ ko suble ba dal na 12 ans ak mbas laay laay la laa 12 ans koy dóor dóor laay 12 ans daan mbës astafirullah waaye yow 12 ans na de waxoon na ma ko dana yàq kaabaab ga dana ko dóor mu daanu waa amul fayu xanaa waa amul fayu xanaa waa amul fayu xanaa na ko dóor nañu dóor nañu mbës mu daanu wuy sama ndey xaw nañ laa rey kenn du jóg ndeysaan ba sa 12 ans kañ beñe la fataaya ba jéngu na danañ la dóor nga daanu way yaay dana ko gaañ way yaay dana ko gaañ xar jëppet na ko wuy sama ndey 107 appui kii fataaye la kii beñe la xoola gémmiñ xoola gémmiñ xoolal gémmiñ gi laay laay la laa douze ans soxor na wuy yaay ma ngay niir xamatul fu muy taxaw xamatul fu muy taxaw buluf ndeysaan moo takk téere bi noonu bato Sénégal moom la ñuy ko bato Sénégal tayri manja xaw ma lanak lanak la bato Sénégal buluf danaa la jàpp di jël na tànk bi bato Sénégal jël na tànk buluf moo ko waxoon moo ko waxoon moo ko waxoon moo ko waxoon moo ko dana ko daan bata bata Sénégal buluf laay la loola buluf du ñeexu ñebe ma ne buluf a ngi xool wa ana remplacé wër ko ndomba bata Sénégal xameetuma la daan na ko waxoon na ma ko waxoon na ma ko nee na keneen nee na na keneen ñëw keneen ñëw nee na na keneen ñëw bato Sénégal daan na buluf bato Sénégal daan na buluf nee na na keneen ñëw Sencha production moo ko tuddee ñoom ñaar ñi nga lewaatoo Mbaye Tine moo fete seen càmmoñ ñàkk jariñu seen ndeyjoor laay laay la la ah ñàkk jariñu door na ñàkk jariñu door na Mbaye Tine a ngi ne tekk ndeysaan ñàkk dooraat na Mbaye Tine a ngi ne na ko ah, bañ na la ngay xeex Mbaye Tine jariñu ña ngay xeex kenn na tànk bi bañ na Mbaye jariñu ñu ngi mane ne Mbaye yi ñu ngi bëre astafurlaa astafurlaa waaye yow lii xeexu lan la medun Mbaye Tine de gémmiñ gaa ngi mel ni ko soccoo guro ma ngay ray Mbaye Tine yaay ña ngay ray Mbaye sees ba damm na sees ba ma toogoon damm na dama am doole sees ba ma toogoon damm na dama am doole lii lan la ma ngay door gi Tine a gi door Mbaye Tine ngi door Mbaye Tine ngi door Mbaye Tine ngi door songoon nañu songoon nañu ñàkk jariñ jël na tànk bi Mbaye Tine nga ko yeeñ bañ na ñàkk benn tànk baa ngi ci suuf ñàkk jariñoo ngi wut fu mu jàpp daan na ko asafurla asafurla asafurla ah. ñàkk jariñu daan na Mbaye Tine par canapui ñàkk jariñu jël na drapeau Thérèse Faye